Ahmed Aidara ataw Khalifa Sall ba day ah. ma ne la ad nañu ko ah. terminé yéene kay ne waaw ata ba day démb la woon nag ma ne la ad nañ ko nag ba juróom ñeenti fan ci weeru juillet ba di dikk la ko si yéene kay ne gars yi day waaw ci wàllum temps bi la ñuy xeex de présidentielle ya ah, maa la wax lii parce que ñi nga xam ne nag ñoom ñooy layal Khalifa Sall day dañ na woon nañ leen ko aj nag ba weeru novembre laa illallah waaye attaque bi day nee na juróom-ñeenti fan ci yorog sunet la moom Demba Kandji Demba Kandji ci boppam nee na gis nga wàllum débat bu di jig bi waaw non non non loolu man nekkuma ca sama nga ñu nekku ca parce loolu man engagé wu ëppalaw enquête yéene kaay ne njeextalu adaw Khalifa Sall bi lée laataa élection présidentielle yo février 2019 waaw ma la nguur gi day waaw ma ngay dëkk nag ca accélérateur ba bëgg mu door te gaaw jeex balaa présidentielle ya waaw waaye Khalifa Sall day ma nga dëgg ca frein ya bëgg mu yéex yéene kaa gi ne en tout cas juróom-ñetti weer daal moo dox suñu diggante élection présidentielle ya de waaye ni mbir mi di doxee nii daal dinay compliqué ngir Khalifa Sall de ah, ah, waaw waaw waaye nag tant que condamnation définitive amul ca mbir ma jóge ca tribunal ba wala cour d'appel wala cour suprême waaw ki nga xam ne moom la ñuy tuumaal day defagul de présumé innocent la rawatina nag wàllum appel bi mi ba léegi nii wax ak yéen Khalifa Sall day présidentiable na ma ne la mën naa déposer candidature am laa la wax enquête yéen a kaay ne waaye nag kon moom la mbir di daw day gaaw na de boo sàgganee Khalifa Sall waaw tribunal yi nga xam ne kon war na a ah, ma ne dana fa gi ne démb dee ci tribunal la defante moo am ci diggante attaque bi Demba laaste Demba Kandji kay a ah. parce dëgg la indi démb kon ca tribunal ba wàññi gars yi xupp leen parce que attaque bi Demba Kandji nee na gis nga tribunal bi duñ ko soppi waaw ak bukki bi nga xam ne nag maanaam moom matoon ko Abdoulaye Wade maar day taali waaw xam nga ñu ngi fàttaliku day élection présidentielle 2012 waaw ba mu desee ay weer ma ne la Abdoulaye Wade amul ku mu dalalul laa la wax transhumant yi kon mel ni du lekk ma ca opposition boobu di ko fekki ca jamonoom waaw ñiñ tuddee nag maanaam ay porteur de yoo naan yor nañu ay nit ak ñi nga xam ne ñi ko doon gëmloo ne mën nañ laa luxusal ndam yenn ci ay kilifa diine kilifa aada yi ay responsable politique ku ci ne di gëmloo Abdoulaye Wade ne ko élection yi yaa koy gagné waaye keroog ca taako sànga ah. ah. métel gu rëy la bàyyu Karim Wade mi lee am ndax daa ñàkk élection yi gëmloo ni ko élection présidentielle 2019 yi day yow Macky da ngay gagné eh, eh waay Samba ah terminé kay ne président Macky Sall day waaw leen nay mën a mu tay ko kay di danga lu fàtte ne li daaneel Abdoulaye Wade mi lee wala mu tay ko xoolal man di daan gu bëri bi xam ne kon maanaam moo doon topp Abdoulaye Wade laa ni lee gars yi transhumé di dem rek Abdoulaye Wade recevoir rek mbooloo moo xam ni kenn xamul lii lan ñii naan góor gi moo bëri doole ñii naan góor gi dolli ñoo yéene kaay ne xam nga Macky Sall de lenn la war a xam ne opposition bi nga xam ne kon moo nekk sa biir parti maanaam ñi farak yow ba pare mer ah boo boo gën a garaaw sax ba waaye opposition Sénégal day Vox Populi nee maa ngi ko taxaw waaw ci dee la jëm de ma ne programme nañ dem yàgg na parce que yéen a ngi dégg Alaaji Malick day mu ne dana jiite kon ab coalition bu day bu mi nee na maa ngi ko taxaw Sénégal gi ba ca présidentielle ya mosuñu ko waxtaanee cay transhumance yi transhumance yoo laas nee am na ko transhumé de am ah, monsieur le la kay bu Sindian waaw ma ne la Macky Sall day Ousmane Sonko benn maire dong la amoon bu far ci moom Macky Sall jël na ko maire Sindian Sud Quotidien ne wàllu njàng meeg njàngale mi day calendrier scolaire bi waaw xale yi day ma ne la nelawatuñ de tii nañu lool boog soobi ne étudiants yi nag ya nekk ca Ndar waaw bind nañu lettre président <laughs> waaw tey wàllu njàng meeg njàngale mi de tey mooy yéene kaay ne wàllu njàng meeg njàngale moomee waaw ginnaaw jàngalekat ya ak étudiants yi pharmaciens waa santé waaw moniteuru daara yi day dugg nañ ca biir ñaxtu ba ëpp ma ne la ñuy sàkku nee nañu nguur gee leen yoreel ko benn milliard ak juróom benn téeméeri million juróom ñett ci ay arriéré de salaire talaata ji ñëw day danañu amal ko doogaanu ñax buñ ca jógee eh. eh, mbir mi mu saafarawul day nee nañu danañu génnee taalibe yëpp ca mbedd ma la ilaha illallah cay liggéey liggéeykatu wàllum justice day tribune yéene kaay nee na ñoom eh, amalaat ab yënga-yëngal parce jàpp nañ ne gouvernement bi day daa jubluwul ci seeni soxla dara dara dara dara laas ñi xam ne nag maanaam ñoom ñoo yëngal tamit ci wàllu yor-yaram gi lay wàllum santé waaw alaaji Malick ak santé éducation waaw ñoo yorub réew di réew de ca la mën a sukkandiku namp ba dem yoonam raw ay maasam ñoo yorub réew santé éducation alaaji Malick Gakou ne lii mandargaal ne plan Sénégal émergent kii dañoo laj échoué nañu mooy grève yi bari Mamadou Lamine Diallo ci yéene gi ne xoolal li ñu signé ci gaz suñ diggante ak Mauritanie Sénégal ndekete amu ci dara dara dara dara séddale bukki la ko Mauritanie def mar d' Italie waaw libération yéene ne yokk maa la ko wax parce que ginnaaw SR ministériel ya société mbii di envol day laal na xaalis téeméer ak juróom benn fukk ak ñett ci ay milliards ak genn wàll 163 virgule 5 milliards ci 180 mois eeway Samba lépp lëndëm maa la ko wax waxuma la dara waaye waa ji day impôt bi lambi golo rek lay def ak waa nguur gi lambi golo te toog ci ay milliards yéene kaa gi ne musiba mbaaba kumba bi nga xam ne nag moo amoon ca stade Demba Diop waaw procureur de la république day nee ma sëñ Bassirou Gueye waaw santaane waat na ay jamu baaraamu tuuma de ay inculpation yu bees maa la ko wax dem naa ca football ba Amara Traoré ci l'observateur day expliqué na gaynde yii li leen manqué équipe bi dafa am lu ko manqué Amara Traoré ne en tout cas football bii day ñuy def nii lii ñu def nii ah, mbir mi des na de des na de <laughs> alaaji équipe nationale bi kay lu yàlla xam doy na ñaan rek ak xaar suñu diggante Croatie ba xam boo paree ma ne la alaaji tëjal